أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu noo ngi ànd ak yéen ci téere borom bi tabaraka wa taala ñu toll ci suura al araf ci kàttanu yàlla ñuy jël tey ñeenti aaya aaya 6 aaya 7 aaya 8 ak aaya 9 ñeenti aaya yi sunu borom diñ ci jàngal ñeenti mbir ñeenti yooyu ba ca njëkk di taqrir aqidatul ba'thi wassuaali walxisaab walwazni al amali yowma alqiyaama wa waznu al amali yowma alqiyaama aaya yaa ngi jàngal ne di saxal pas pasu dekki ab jullit dafa óragam dekki xam ngeen ne bokk na ci li yàq dundu yéeféer yi mooy ñàkk a gëm dekki te nit bu gëmul dekki adunaam du jub alaxiraam du baax zaama alladina kafaru an lan yubaatu qul bala wa rabbi la tubaatunna summa la tunabbi'unna bima amiltum sunu borom subhanahu wa taala wax ne gaa yi nga xam ne ay yéeféer lañ dañu ne dekki amut ëllëg yowmal xiyaam du ñu taxaw ci kanamu yàlla loolu nag bokkul ci pas-pasu jullit ab jullit moom li muy gëm mooy ëllëg sunu borom subhaanahu wa taala ginnaaw ba mu ko reyee dana ko dekkil ci bàmmeel yi àtte ko dinañ ko laaj wa su'aal jàng nañ loolu ëllëg yowmal xiyaam danañ laaj ab jullit waaye wala xisaab danañ ko atte ci kanamu yàlla waaye ay jëfam sax dañ koy peese fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi ayshatin radiya wa amma man xafat mawazinuhu fa ummuhu hawiya kon ëllëg yowmal qiyaam sax dañuy peese jëf yi am na ñu koy dàq yenn mbooloo yenn groupe ci islam dañuy wax ne yowmal qiyaam ay peese sax du fa am waaye ab jullit moom su bëggee pas-pasam dëppoog pas-pasu yonent bi su bëggee la mu gëm wir na mu déggee aaya yi ak yonent bi jàngale ko noonu noonu la koy gëmee dekki am na nga gëm ne dañuy dekki ëllëg danañ ñu laaj nga gëm loolu danañ ñu àtte nga gëm loolu danañ peese jëf yi nga gëm loolu nga bañ koo indil benn misaal ak benn dalil ak benn lay di wax ne noo peese mu ta am nangam ak déedéet yàllaa ne dañuy peese jëf yi danañ ko peese te loolu ay aaya la ci alquran ñaareel mooy suubatul mawqif haysu tusalul umam wa rusul alayhim salaam kadalik yàlla wax nañu sax bis boobu ñuy taxaloo jaam yi di leen laaj bis bu jafe la bis bu metti la bis bu tar la suubatul mawqif bisub yowmal qiyaam bis bu tar la yowman yajalul wildaan shiba ah ya ayuha nnas ittaqu rabbakum inna zalzalata saa yàlla moo ko wax sayun azim yowma tarawnaha tazhalu kullu murdiatin amma ardaat wa tadau kullu zaati hamlin wa tara nnaasa sukaara wa maa hum walakinna azaballahi shadid kon ëllëg yowmal qiyaam jafe-jafe bu metti la suub dafa tar lu tax hay su tus alul umam ndax dañuy laaj yeneen xeet yi ñu jiitu depuis Adama alayhi salaam Nuux Ibrahim Muusa Isa ñoom ñëpp dañuy laaj yeneen xeet yooyu yëpp. su yeneen xeet yi weddee xeetu sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom mooy ñëw di dëggalal yonent yooyu ne yàlla yónni woon na leen jàngeen loolu ci suratul muzammil ñetteel mooy alfalaax wal xusraan mabniyaani ala kasbi dunya fa man kasaba xayran naja wa man kasaba charran halaka alfalaax wal xusraan texe ak perte ñaar yooyu ñu ngi ko def ci àdduna ci àdduna ku fi nekk ci lu baax nekk fi ci diine ëllëg alaaxira da ngay texe waaye ci àdduna yi ku fi nekk ci caaxaan nekk fi ji di làmbatu nekk fi ci ndànd fay yowmal xiyaam tamit da ngay perte kon texe balaa doomu aadama di yëg ne moom dëgg dëgg dëgg bu demee àllaaxira day texe fii la koy njëkk a xamee balaa muy dee mooy fexeel nga nekk ci njub fexeel nga nekk ci dëgg fexeel nga nekk ci tawxiid sa aqida bi mu wër nga nekk ci laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah nga nekk ci aqida saxiix aqida bu ne kañ bu bu wér këng aqida bi nag mënta wér lu dul mu dëppoog la yonent bi indi woon lu dul mu dëppoog la saxaaba yi gëmoon moo tax mu ne ñaar yooyu alfalaax wal xusraan ñoom ñaar mu ne mabniyaan alal kasbi fi dunya fa man kasaba xayran naja képp koo xam ne ci ñun fii ci àdduna da ngaa nekk ci lu jàmm da ngaa fàggu jàmm ci lu mu mën a doon ëllëg yowmal xiyaam da ngay mucc waaye wa man kasaba charran halaka képp ku fàggu aw ay ëllëg da nga perte àdduna perte àllaaxira dana jàng aussi wujubu shukru niami wa taa lillahi wa rasuli wujubu shukru niami nit su ko yàlla ba da mayee xéewal da ko war a sant wa amma bi niamati rabbika fa haddis imalu awal ala daawuda shukran wa qalilum min ibadiya shakur beneen bi mooy ashukru tarkul maasi sant yàlla mooy nga bàyyi mooy ñu bëri ci ñun jàpp nañ ne sant yàlla mooy lekk ba suur rek daane alhamdulilahi rabbil alamin wala naan daane alham ci la bokk waaye dëgg dëgg dëgg dëgg sant yàlla mooy bàyyi koo mooy beneen bi mooy nga yëg ni xéewal gépp goo am ci yàlla la ndax wa ma bikum min ni'ma fa min allah laysa min ahad fa min allah faqat lépp lu ñu mën a am ci xéewal bàyyeekoowul ci ma sàmm bàyyeekoowul ci ma demba bàyyeekoowul ci kenn ci kan la bàyyeekoo ci yàlla te wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha su ngeen doon lim xéewal yi leen yàlla defal kenn mu ci yéen mënu koo compter kenn kenn mbokk yi ndax nopp bi bii di dégg mën nañ sant yàlla ci li ñuy dégg kan moo ko ci mën bët yi ñuy xool mën nañ sant yàlla bakkan yi li ñuy nooyi mën nañoo sant yàlla suñu tànk yi li muy dox suñu loxo yi suñu cër yi ndax kenn mën na cee sant yàlla benn bu ko perte mënoo ko kon nag dafa war ci ñun loolu wujub la saa yu déggee ñu ne wujub looy dégg mooy farata la ci yow sant xéewal yi la yàlla may xéewal gi gën a rëy mooy ni'matul islaam mooy yàlla def may ñu islaam ba pare def ñu ay jullit boole ñu ci ummatu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam damay wax chaque jour chaque jour su ma rombee stade bi ñuy football xam nga dañ laa wax boo rombee ab handicapé na nga wax ban ñaan alhamdulilah alhamdulilah
boo rombee ab handicapé hmm? iza mararta euh, a'raj ay barakallahu fiik c'est ça man nag su ma rombee su ma rombee ñi football fii waaw mu ngoog da ngay wax alhamdulilah allazi afaana mimma btala man nag su ma rombee saal bi gars yi di football damay wax alhamdulilah allazi afaana mimma btalahum baadul ahyaani cheikh iza marartu hina fi lmalab annaasu muzdahimun yadxuluun aqra'u haza du'a إذا رأيتم مبتلى لا لا لا لا لا أنا لا أقول مبتلى آه إذا رأيتم إذا رأيت أناس يدخلون فينا في هذا الميدان يلعبون ويزدهمون ويتقاتلون للدخول أقرأ هذا الدعاء لأنه ابتلاء ابتلى بهوى الدنيا والله العظيم ابتلاء عظيم nattu la bu rëy a rëy nga gis nit ñi fii xoolal tey police moo fi ñëw pour football am oto police baa ngi nii taxaw ñaar waa ñan ñooy xëccoo waa nawetaan ak waa championnat ñooy reyante ñoo bugg reyante tey police ñëw taxaw ne waa championnat ñooy football wala musiba boobu ah reyante wuñ ngir diine reyante wuñ ngir daal ngir bal bal allahu akbar nga xam ne iblis liggéey na waxoon na la aatiyannahum min bayni aydihim wa an wa min xalfihim wa an aymaani wa an fala tajid aksarahum baat baa ngi nii dinaa fexe yàlla ba duñ la sant aksarahum fala tajiduhum shakirin li ëpp ci nit ñi duñ la sant yow yàlla seen xéewal yi nga leen may feneen lañ koy defale xoola ponkal yi football tey ni ñu toll ci wér gu yaram yaqulu cheikh ajabani xaalu shabab benn góor moo ko mu ne ajabani xaalu shabab yastatiuna an yarfau al asqala wa hunaka rajulun naqulu aqwa rajulin fi alalam raait aqwa rajulin fi alalam yarfau al asqal 50 kilos 500 kilos 250 kilos day puus ay oto di puus ay avion day concentré wu oto jaar ci kaw mu ne këj waaye bu fajar jotee mënta yëkkati sër bi dem julli ji sër bi mu sàngoo mënu koo yëkkati dem julli ji allahu akbar cheikh boobu nee na moom euh, mbirum ndaw yi daf ko yëkkati da ko da koo jaaxal mën nañoo yëkkati lu diis lu ne lépp mën nañ ko yëkkati ba ci kaw amma istiqaz min annawmi sabahan li salati alfajri ثقيل saqil alghita alladhina yar- yad'unahu fawqahum la yastatiuna an yarfahu saqil alayhim رفعة نعم رفع ال- الثوب هذا الثوب لا يستطيعون أن يرفعوا لكن يستطيعون أن يرفعوا سيارات والأثقال وكل شيء أما هذا الثوب لا يستطيعون أن يرفعوا لصلاة الفجر لاستيقاظ صلاة الفجر أسقر الصلاتين على المنافق صلاة الصبح والس- والعشاء yonent bi loolu la wax nee na li gën a métti li gën a diis ci ab naafiq mooy lan mooy julli suba ak julli gee julli suba xoola julli suba rek man dama yéemu wallahi la azim su ma yeewoo yenn saa yi yàlla dimbali ma ma yeewu ma jóg jàpp jëm jàkk ci fajar ma gis mbedd mi lu mu lëndëmee ma gis ay benn nit ñaari nit nga séen fële benn nit fële nga gestu sa ginnaaw doo gis kan allahu akbar te dëkkër yooyu wër la yëpp ay jullit la ñëpp a ngi naaw affaire bi daal daf may jaaxal trop trop trop.
man noonu lay def may taxaw ma sant yàlla yàlla mi nga xam ne yow moo la ndeysaan sama góor ga ñaan bi mu doon ñaan bu ma àndeek moom julli ji ba ñëw mu jàpp sama loxo mu ne ma doom ma ne ah mu ne ma yàlla na yàlla xiir ci boppam mbokk yi yàlla na yàlla xiir ci boppam loolu yëpp xéewal la te ci xéewal yi ñu yàlla defal la wa ma bikum min ni'matin fa min allah kon dañoo war a sant yàlla ci xéewal yi ñu defal waaye bil imaani ci mbay bu mu ñu may ñu nekk ay jullit wa taatu lillahi wa li rasulihi ñu sant yàlla ci xéewal bi mu ñu may xoola dëkk bi tey ni ñu mel ci topp bidaa ci topp shirk ci di ci reyante di ci di ci rey ay nit tey boo taxawee fii ne laa ilaha illallah rek mun nañ laa rey jàng ngeen loolu ci alquran ah boo waxee yàlla kese wa iza zukira allah wahda iz ma'azzat qulubu allazina la yu'minuna bil akhirah wa iza zukira min dunihi iza hum yastabshirun wala aaya boobu loolu tey bu doon du alquran soo ko waxee nañu ne kii ne yow yow yow da ngay tooñ quoi pourtant ndeysaan réalité la bu ñuy dund réalité la bu am kon xéewal la na ngeen yëg ne yàlla daf leen baaxee daf leen may xéewal bu rëy a rëy rëy rëy ngeen nekk ay jullit waaye ngeen topp ko moom yàlla gëm ko topp ko moog yonentam kon ñeenti aaya yooyu moom la ñuy jël tey dars ñu ñaan yàlla tabaraka wa taala yal na yàlla dëgëral sunu làmmiñ ñu bàyyi cheikh bi mu jàngal ñu ko fala nasalanna allazina ursila ilayhim wala nasalanna almursalin
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق allahu akbar فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا allahu akbar فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون صدق الله العظيم بارك الله فيك جزاك الله خيرا sunu borom subhanahu wa taala mbokk yi moo ñuy nettali ëllëg lan mooy xew moom mi nga xam ne moo moom lépp moom moo ñuy xabaar mu ne ñu fala nasalanna alladina ursila ilayhim danaa yónni danaa laaj gaa yooyu nga xam ne man yàlla maa leen yónni woon ñan la yàlla yónni woon mooy yonent yi alayhimu salaam ñoom ñëpp dinaa leen taxawloo ëllëg daan leen di laaj waa léegi su ñuy laaj ñi ñu yónni woon kon ñi ñu yónniwul nag ñi ñu yónniwul kon te ñi jàng arab xam nañ baat bi fala nasalanna baat boobu lu muy tekki ci arab baat bi kese ci arab laa wax nun bi lan la tawkiit saqil wala xafiif saqil lu muy tekki mooy yàlla dafa giñ ne ëllëg danaa laaj ñi ma yónni woon Hmm. waaye wala nas dinaa laaj ñi ma ñi ñu yónni woon maanaam ñun ñi nga xam ne dañoo yónni woon ci ñun danañ ñu laaj waaye wala nasalanna al mursalin danaa laaj aussi ñi ma yónni woon yéen ñi nga xam ne dañ leen yónni woon ay ndaw dañ leen laaj waaye ndaw yi ñu yónni woon danañ leen poñe ne leen yéen tamit kaa leen ngeen taxaw loolu kañ la isa jama al xalaiq li fasli al qadaa bu yàlla dajalee jaam ñi di leen atte sunu borom loolu la ñuy wax mu giñ mu ne annahu yasalu kullu umma aw jamaa aw fard dana laaj bépp mbooloo dana laaj bépp xeet dana laaj bépp individu yow kenn cundung sax yàlla dina la laaj bi la yonent yi woowee lan nga tontu woon ndax yonent yi ñëwoon nañ ndax téere ba la yonent yi indiloon gis nga ko ñoom ñëpp yàlla dina leen woo laaj leen ndax gëmoon ngeen yàlla ndax toppoon ngeen yonent yi ndax yonent yi jottali woon nañ leen tawxiid ndax yonent yi waxoon nañ leen ngeen jaamu yàlla suñ leen laajee yéen ba pare nag wala nasalanna al mursalin danaa laaj nag yonent yi encore ñoom it ndax yéen it eggali woon ngeen liñ leen santoon te xam ngeen yàlla li mu wax yaa ayyuha rasulu balligh ma unzila ilayka fa in lam tafal fa ma ballagta risalat allah kon ñoom yonent yi balaa yàlla di leen laaj ñun ñi la yàlla di njëkk a laaj ba pare mu xool ñun lu ñuy tontu ñun bu ñu dëggalee wala ñu weddi yonent yi ñëw jàngeen ci suuratul muzammil yàlla mu ne inna arsalna ilaykum rasulan kama arsalna ila firawna rasul yéen ñi maa yónni yónni yéen ci yéen ndaw comme ni ma yónnee woon ci firawna ndaw kon ndeke yonent yi dañoo ñëw ci ñun pour fàttali ñu moo tax wàccug yonent yi rek day freiné lay bu ñu war a lay ëllëg yowmal xiyaam suñu digganteeg suñu borom kenn du am loo wax ndax yonent yi ñëw nañ leeral nañ jàngale nañ bàyyi nañ fi moo tax ëllëg kenn amul lay mbir yi leer na nañ ñun ñoo fi nekk di tappale ak di dugg ci mboy mboy ak di dugg ci leneen waaw la tey nit ñi di romb alxuraan nekk ci leneen koo ne alxuraan ñu naan la non ah loolu daal ñenn ñi sax bal dañu ne ma naan alxuraan jarta jàng waaw fu ñu jëm borom bi ne du ma yem ci rek laaj yéen ñi ñu yónni woon ndaw yi du ma rek deñ ci du ma taxaw rek ci laaj ndaw ya waaye falan naqussanna alayhim bi ilmin danaa leen xabaar danaa leen nettali te bu ma leen di nettali di leen wax mbir yi ci xam-xam laa koy teg bi ilmin ndax dafa leer ci man nekkul lu nëbb dafa leer naññ yàlla ne dinaa leen wax ba ngeen nekkee ci àdduna la ngeen nekkoon di def kenn ku nekk la mu def xoolal tey am na ci ñun ñoo xam ne dëgg dëgg dëgg dëgg alxuraan aaya yi ñuy toll nii di ko jàng ak dëgg dëgg buñ koy comparé tey ak xam-xamu àdduna buñ nee yàlla ne ëllëg dinaa leen nettali mbir yi ñu war koo gëm fi mu nekk nii jàkka ji julli nañ timis ba pare ñi ñu julligee buñ demee caméra yaa ngi fi caméra surveillance mun nañ ñëwaat léegi ñu indilaat ñu ko luñ nekk woon ci jàkka ji ah ah caméra yaa ngi nii surveillance bu ñu demee ñibbi léegi léegi léegi est-ce que mën nañu ko indilaat wala mënuñu ko indilaat waaw léegi nag kan moo ko defar doo déet yii caméra yi doomu aadama mu mun laa won léegi léegi sa dund li nga fi nekkee woon nga gis président bu gouverne ba dee gars yi def ci moom reportage tegalaat ku lépp fi mu jaar ah nga gis léegi yow yàlla mu ne la ëllëg naa la tegal sa reportage nga naan non loolu mënut a nekk loolu mënut a nekk a antum asaddu xalqan ami sama doomu aadama kay dëgg-dëgg ah ci surat yaasin yàlla day wax ne waa ji dafa romb yax bu fa yax bu weex tal mu ne man yuhyil izama wa hiya lan la aaya bi tontu qul yuhyiha alladi ansaaha awwala marra wa huwa bi kulli xalqin alim allahu akbar doomu aadama naka la ko yàlla di waxee suba falan naqussanna alayhim bi ilmin danaa leen nettali lépp doomu aadama ne noonu loolu mun ta nag yàlla da koo fekke borom xam-xam yi nee nañ ëllëg yowmal xiyaam yàlla day woo doomu aadama ne ko xoolee li nga doon def mu ne lii defuma ci dara yàlla mu ne da ngay weddi encore mu ne defuma ko da nga maa bëgg a tuumaa rek parce que yaa ma ëpp doole yàlla mu ne ko léegi nag ma indi seede mu ne waaw waaw na ngay indi seede waaye maay seede sama bopp de kenn du ma seede ku dul sama bopp ndax koo fi indi dalaa ragal yow lay faral Hmm, yàlla mu ne d'accord naa yaay seede sa bopp al yawma naxtimu ala afaayim wa tukallimuna wa tashhad foofu ñu doon wax rek loxo mooy tëb ne ana lil xaraami lamastu li araamoon maa ko doon laal bët ne ana lil xaraami nazartu nopp ne ana lil xaraami samitu tànk ne ana lil xaraami mashaytu ku nekk di wax cër yi man maa def maa def maa def maa def gémmiñ ne ana lil xaraami akaltu malaaka bu nekk ndeyjoor mu ne ana araft ana katabt malaaka bu nekk càmmoñ mu ne ana shahat يوم تشهد على waaw yàlla mu ne ana araftu wa shatartu yàlla ne ana araftu wa shatartu waaye tey laqad istadda gadabi ala man qalla xayaauhu alayya sama mbugal dana tar ci waajoo xam ne bi mu nekkee ci àdduna daf ma ñàkke woon kersa rus nit ñi ragal leen foofu la yàlla di wax malaaka yi xuzu Ablaay ibnu Abbas nee na su yàlla ne malaaka yi xuzu mu ne soixante-dix mille malaaka juróom-ñaar fukki junni malaaka ñoo lay jiital benn malaaka rek xajul ci nit waxuma la nag soixante-dix mille malaaka kon sunu borom li mu ñu wax mooy dëgg fala naqussanna alayhim bi ilmin te dinaa leen yëgal ne wa ma kunna ghaibin absenté wu ma de fàdduwuma naa leen yëgal ne da ngeen yaakaar ne damaa sori huwa aqrabu ilaykum min hablil warid même ci dee yàlla day wax ne fa lawla iza balagatil hulquma wa antum hina izin tanzurun wa wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tanzur la tubsirun man yàlla maa leen ko gën a jege waaye gisu leen moom kon doomu aadama saa yoo gëmee ne yàlla nekk fi am nga problème waaw foo nekk yàlla ngi lay gis yaalamu xaainata al ayuni ma tux fi sudur laa yaxfa alayhi sayun fi l ardi wala fi sama yàlla dara nëbbutuwul ci moom lépp lépp lépp lépp lépp mu ngi ci teg ak gisam moo tax wa ma kunna xaaibin bu leen yaakaar na yàlla dafa absent wala yaa nekk isa xalawta yowman fala taqul xalawtu waaye waqul alayya raqib waxal am na ku may fuuglu am na ku may gis waaw loolu na leer ci ñun na leer ci ñun loolu lu muy dimbali doomu aadama mooy foo nekk nga xam ne yàllaa ngi fa gis nga Abdullah ibn Omar bi ko waa ji sàmmkat bi fekkee ci àll bi ne ko doo ñu reyal ci xar yi benn mu ne moom ma ko mu ne boo demee nga ni borom xar yi tilli bee ko lekk sàmmkat bi ne Abdullah ibn Omar ayna Allah Abdoulaye ibn Omar dafa tëye sikkim bi di bërëngu ci suuf naan qaala raa'i ayna allah qaala raa'i ayna allah ana yàlla sunu borom subhanahu wa taala saa yoo gëmee ne mu ngi ànd ak yow rek da ngay nekk ci jàmm waaye li gën a garaaw nga yaakaar ne yàlla gisu la yastaxfuna min annas wala yastaxfuna min allah wa huwa maahum dañuy nëbbatu nit ñi ne dang ci yàlla di def lu neex dafa ne yàlla gisuñu te yàlla nee na wa ma kunna ghaibin dinaa leen wax ne man de musuma fàddu jamono yi ngeen nekkee ci àdduna daan def yi bon ngeen yaakaar ne gisuma leen da ngeen doon nax seen bopp kon loolu day dimbali ab julit mu ne ëllëg yowmal qiyaam wal waznu yowma izil al xoq ëllëg yowmal yowmal qiyaam bu ñuy peese jëf yi dañ koy peese pees al aadil ku maandu ki sunu borom subhanahu wa taala dara balance mi lépp lay peese dara la dul bàyyi te keroog ku fay peese mooy yàlla te ci dëgg lañ koy teg jàng ngeen ci alquran fa amma man saqulat mawasinuhu foo fii shay'in raadi wa amma man xafat mawasinuhu jàng ngeen ko mu leer nañ kon ëllëg loolu dafay wane ne ëllëg yowmal qiyam sunu borom subhanahu wa taala day peese jëf yi képp koo xam ne say jëf ju baax moo ëpp nga texe képp koo xam ne sa jëf ju bon moo ëpp nga texee di mu ne faman saqulat mawazinu fa ulaika humul muflihun allahumma ij'alna minhum képp koo xam ne sa yu baax moo gën a diis ci balance bañ ko teg borom bi nee na ñooñu ñooy ñi texe al muflihun ñi texe jàngeen yàlla subhanahu wa taala mu ne ñi texe qad aflaha al muminuun mu ne ñi ñi mel nii texe nañ way gëm yàlla yu mel nii texe nañ sifa melokaan bu lan yàlla njëkk a jox ñoom ñi texe ñi lan la allazina hum fi salatihim xaashi'un ñaar bu ñuy julli dañuy toroxlu dañuy toroxlu ci julli waaw loolu nag lu jar a bàyyi xel la tey toroxlu ci julli daanaka léegi ibaadaat yi ñàkk nañ lépp julli sax perte nañ ko am naa benn téere bu tudd salaasiina nuqta lil xusu fi sala pour booy julli nga toroxlu muy ne fanweeri point ci julli yoo xam da nga ko war a def pour nga am toroxlu julli yaay Aysa nee na yonent bi alayhi salaatu salaam bu daan julli dañuy dégg ci dënn bi azizun ka azizul mirjal minal buka ci dënn bi allazina hum fi salatihim yaay Aysa nee na dañ daan toog di waxtaan ak yonent bi waaye isa haana waxtu salaa ka annahu la yaarifuna day mel ne xamatuñu ndax julli moo jot yàlla loolu la wax mu ne ñiy julli ñi gëm yàlla texe nañ ñu ne ko mooy ñan mu ne ñi nga xam ne bu ñuy julli dañuy toroxlu lan mooy ñaareelu màndaga bi alladina hum ani laghwi mu'ridun bu ñu rombee caaxaan dañuy du moyu duñ ko xool waa da ngeen yaakaar ne foofu noonu aaya bi dañu yaakaar ne alladina hum ani laghwi walladina hum ani laghwi mu'ridun ndax ci ci romb ko ci mbedd kese la tele nag ñaata ñun ci ñun ñoo toog bi di seetaan match yooyu nuñ tudd championnat championnat italien yi Messi nu mu no équipe bi tudd ay Real xaw ma Barça Real ba duñ julli ci timis di ci xeex di ci xuloo Messi ah xaw ma Ronaldo xaw ma ah te yàlla nee na wallazina hum anil lahwi mu'ridun ñaata ñun fi ñoo am ay mbër yuy bëre ñan ñoo faral fi Balla Gaye dañu yëkkat seen loxo ñu faral Yékini xaw ma ñu faral kooku Bombardier voilà loolu ci laxwu la bokk est-ce que loolu kese la ak théâtre yi ñàkk fula yu bu amul bopp amul genn ah comédien yooyu ay Kouthia ay Sandiougu te yàlla nee na wallazina hum anil laghwi mu'ridun ah allahu akbar loo fu ñu jëm te yëpp yàlla nee na ñu ñi gëm yàlla ñi texe ñi mooy ñii ñi dul seetaan caaxaan yi ñu duñ ko déglu duñ ko xool te ñun dañ koy xool lan mooy ñetteel bi ñi nga xam ne bu ñu amee alal dañuy génne azak seen alal dañ dañ ciy génne azak duñ ko rënk duñu ngoot xam ngeen ne ñi dul génne azaka yowmal xiyaam dañu leen di paase seen alal wallazina yaknizuna zahaba wal fidda lan lañ leen def dan lañ leen di koy paase ëllëg yowmal xiyaam fer à paase lañ koy def lan mooy trois lan mooy quatrième bi wallazina hum li furujihim hafizun ñi nga xam ne dañoo wattu seen i tubéy wattu seen i pëy duñu njaaloo duñ dem ci xale yu góor duñ dem ci xale yu jigéen li furujihim dañoo téye seen i bët téye seen i nopp téye seen i gémmiñ duñu njaaloo moom lan mooy beneen bi seeni soxna wala lu seen loxo ndeyjoor moom lam ca tegaat mooy wallazina hum li amaanatihim wa ahdihim raa'uun ñi nga xam ne seen kóllëre ak seen dig ga ñu digganteeg yàlla diggante kook seen diine diggante kook seen mbokk dañ ko sàmm maanaam ndekk ne kon ñi texe loolu yàlla naan qad aflaha al mu'minuun al mu'minuun lahum sifaat wa a'maal dañoo am ay melokaan am ay jëf yuñ doon def ba def ko faatu dajeeg yàlla tabaraka wa taala yàlla jël leen dugal leen aljanna kon ñu bàyyi xel loolu bu baax a baax te fa man zuhziha anin naar wa udxila aljanna faqad faaz ñooy ñooy ñi texe borom bi ne wa man xaffat mawaziinu fa ulaika alladina xasiru anfusahum bima kaanu bi ayatina yazlimun fa man xaffat bu ñu jëlee balance yi di peese ñu jël say jëf teg ci balance képp koo xam ne balance am oyof na ndax ay bàkkaar ñoo ci nekk bàkkaar ya ëpp tiyaaba yi yàlla mu ne fa ulaayika ñooñu loolu dong doyoon naa ah muy ni tawkiid allazina tawkiid la fa ulaayika dong doyoon na waaye mu ne fa ulaika ñooñu allazina ñooy ñi nga xam ne daf ko dëgëral xasiru perte nañ allahu akbar waaw ku yàlla ne perte nga lu ngeen ci xam hmm? ku yàlla ne ñuy mel ni perte nañ beneen waaye ñoo ne noonu pertoo dinaa ko négocier gars yi ku yàlla ne perte nga lu ngeen ci xam wallahi perte nga àdduna perte àllaaxira ku la yaakaar sax perte na borom waykat bi day wax ne izal mar'u lam yuxlaq sa'idan fil azal faqad xaaba man rabbaahu wa xaabal mu'limu doomu aadama bu ko yàlla bindee ci azal mu ne kii alku na kooku torox na kenn mënut a fexe ba mu baax ñu ne fa Muusa allazi rabbaahu Jibril kaafir fa Muusa allazi rabbaahu firawna mursalu Jibril mu yar nit mu nekk yéeféer firawna yar nit mu nekk jullit nekk yonent lan est-ce que logique na xel nangu na ko xel nangu ko waaye mbirum yàllaa demee noonu kon ku yàlla ne perte nga wallahi perte nga te ñii lan moo tax ñu perte mu ne allazina xasiru anfusahum lan mooy sabab bima kaanu bi ayatina yaslimun ndax dañ doon tooñ aaya yàlla yi dañoo nekkoon ci àdduna bu ñu leen ne yàlla leen ñu naan loolu ay wax kese la bu ñu kenn sonal aaya yàlla yi lañ doon dammati gëmuñu woon alxuraan gëmuñu sharia boo waxee sharia ñu ne sharia dafa diis sharia xaqiqa ko ëpp doole sharia ñu ne sharia tegal fee indil xaqiqa xaqiqa moo mën sharia loolu foo ko doo koy dégg fi waaw nga gis waa ji mu ne damay naan yéen yéen sàngara yow ñu ne ko bàyyi sàngara mu ne non yéen sàngara ngeen gis balaa muy egg suma put meew laa koy def yónnee nañ ma sam whatsapp benn mbooloo bu rëy waa ji naan leen sëriñ bi nee na ngeen bàyyi yàmba ku ko ci mënul bàyyi nag na nga ñëw gisee ak man rek ñëpp jóg taxaw ñëpp a jóg ne ko ñun ñëpp dañuy tux kenn desut waa léegi léegi ñooñu lu ñu leen war a def dañ leen ko war a bàyyi la wala dañ leen war a waa léegi tux leen rek te graawal di rek sëñ bi dina ko lijjanti allahu akbar yal nañ yàlla woon dëgg sunu borom nee na ñii de xasiru perte nañ anfusahum seen bopp bima kaanu bi ayatina yaslimun ndax la ñu nekk woon ci àdduna mooy di jalgati sama aaya yi di def lu leen neex sunu borom ne walaqad makkannaakum fil ard man yàlla maa leen saxal ci kaw suuf maa leen jàppandalal lépp maa leen indil ak dal maa leen indil ak xéewal makkannaakum fil ard ma jàppandil leen lépp ma yombalal leen ko wa jaalnaa lakum fiha maaish ma defal leen ci lépp loo xam ne baax na pour ngeen dunde ko allahu akbar moo tax doomu aadama ci kaw suuf rek nga mën a dundee minha xalaqnaakum wa fiha wa minha amul feneen fii rek waaw fii kese amul feneen wa jaalnaa lakum fiha maaish fii laa leen defal seen dund man yàlla maa leen ko fi jàppandal te yéen du yéen rek de mataan lakum wali anaamikum yéen ak seeni jur yi ngeen di xoolal doomu aadama xéewal yi ko yàlla wàccee boo demee biir géej yàlla defal na la fa xéewal wala def ko fa ah asamaan yàlla defal na la fa xéewal wala deful ko ci suuf si ci kaw xéewal a ngi fi wala nekku fi ci biir xéewal yaa ngi fi wala nekku fi ngelaw li montagne yi foo dem doomu aadama yàlla def ko faa tàggatal ay xéewal yu dul jeex ndax doomu aadama fii rek la mën a dund te lépp yàlla moo ko fi defal lépp yàlla fii la la ko defal huwa allazi xalaqa lakum ma fil ardi jamian lépp sunu borom subhanahu wa taala moo ñu ko defaral fii pour ñu dund fi dund bu baax pour ñu dund fi dund bu jàppandi waaye nag xoolal yàlla lim def lépp ci xéewal yooyu yëpp mu ne qalilan ma tashkurun allahu akbar allah xoolal ñuy dem géej dañuy dem géej indi ay jën yu dul jeex bi ngeen nekkee ay sénégalais ba léegi yéen a ngi lekk jën wala lekku leen jeex na wala jeexul jeexul yéen a ngi lekk yàpp xar jeex na wala jeexul yéen a ngi lekk nag jeex na wala jeexul yéen a ngi lekk béy jeex na wala jeexul yéen a ngi naan jeex na wala jeexul yéen a ngi lekk ay lijum jeex na wala jeexul yéen a ngi lekk ay firwi jeex na wala jeexul yéen a ngi noyyi ngelaw yàlla li jeex na wala jeexul waaye qalilan ma tashkurun néew na luñ sant yàlla ci xéewal yim ñu defar da ngay gis ku lekk ba suur daan na jërëjëf sëñ bi moo niinal ceeb bi moo nangam nangam yee moo niinal ceeb yee moo subhanallah ceeb la niinal ceeb bi ko yàllaa ko niinal di ko woy diñ koy woy di ko woy ci di woy du def kenn xamul ay woy yu doy waar woy yu bokkaale yoo xam ne saay dégg ko sax musiba la yàlla nañ ci yàlla musal yenn saa yi nga gis ñuy woy nit di ko bokkaale bokkaale yoo xam ne yàlla nañu yàlla defal sutura nañu xam ne yàlla tabaraka wa taala li ñu waxoon sànq wa in ta'uddu ni'matallahi laa tuhsuha munu leen ko kenn munu ko xéewal yi ñu yàlla defal munuñu ko xoolal li mu wax ni wala qad makkannaakum fil ard maa leen jàppandi lépp ci suuf lépp yàllaa ko jàpp xoolal tey doomu aadama di ñuy dundee science bi xoolal internet xoolal oto yi xoolal avion yi xoolal gaal yi bato yi xool leen loolu lépp yàlla ne maa ko jàppandi ngelaw li bu fi avion naawee ci kaw awalam yara ila tayr fawqahum saafatin wa yaqbidna maa yumsikuhunna إنه الرحمن illa rahman Allah suñu borom lim ñu may kenn mënu ko suñu borom lim def kenn mënu ko inna fi xalqi samawati wal ard wa ixtilaafi lleyli wannahar walfulki allati tajri fi lbahri bima yanfau nnas وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا بالأرض بعد موتها وبث فيها من كل داب وتصريف الرياح وسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات waaye loolu yëpp xoolal yooyu yëpp yooyu yëpp li yàlla wax lan pour doomu aadama la pour doomu aadama la wal fulki lati tajri fil bahr bi maza bi ma yanfau nnas xoolal ci liy jëriñ nit ñi la gi- la bato xoolal conteneur yi bato yi yëpp conteneur yi ñaata conteneur la ñuy indi ay tonne ah ay conteneur ñaata conteneur ay tonne benn allahu akbar allahu akbar wallahi alazim yal nañu yàlla yal nañu yàlla woon dëgg c'est que affaire yi daf ñoo jege ba duñ ko gis fi daf jege xam nga doomu aadama bu ko dara jegee du ko gis wa laqad makkannaakum fi l ard wa jaalna fiha maayish ma defal leen ci lépp pour yéen waaye qalilan ma tashkuru oh wallahi lii yëpp ñun ñi ñëpp jar nañ ñoo jooy fii wa qalilum min ibadiya shakur yàlla may la soxna may lay doom ngay am dépasse ku dégg bëccëg te doo wax sax alhamdulilahi rabbil alamin ñaat nit ñoo fi nekk amuñu jabar ñaat nit ñoo fi nekk amuñu doom yaa ñaata nit ñoo fi nekk amuñu kër ñaata nit ñoo fi nekk amuñu tànk ñaata nit ñoo fi nekk amuñu loxo ñaata nit ñoo fi nekk duñ gis ñaata nit ñoo dul dégg ñaata nit ñoo amul gémmiñ ñoo amul bëñ wala seen seen melokaan ni leen yàlla def yow yàlla muccal la ci loolu lépp qalilan ma tashkurun néew na lu ngeen ma sant yal nañu yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yal nañu yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori ko ñoo ngi jéggalu njuumte yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu